waaw tey lu ñu jëlee direction générale des élections daf ñoo bett euh, daf ñoo jaaxal euh, muy euh, loo xam ne lu doy waar parce que tey dañ ñu ñëw présenté wu pour retirer fiche de collecte de parrainage donc nga xam ne le candidat Ousmane Sonko moom nañ ko war a jox te ñëpp gisoon nañu le 29 septembre ces fiches de collecte de parrainage dañu ñu ko bañaloon ci motif boo xam ne teguñu ko feen jaay ñu doole ne du ñu jox fiche de collecte de parrainage donc ñun quand ñu rester républicain ñu rester démocrate ñu jël lu ñu yoon may dem dafi ay recours ba ñu am ci ndam tribunal d'instance de Ziguinchor dëggal ñun lu ñu doon wax ni ñoom amuñu benn droit tere ñu jox fiche de collecte de parrainage tribunal d'instance de Ziguinchor moo annuler radiation Ousmane Sonko sur les listes électorales tribunal d'instance de Ziguinchor moo joxe ordre ne administration yëpp nga xam ne ñoo bokk ci ministère de l'intérieur nañu fexe delloo Ousmane Sonko ci liste électorale yi lu mu gën a gaawee loolu suñ ko defee ba pare jox ko ay fiche de collecte de parrainage am ñu am une décision de justice. li nga lan lañ la wax. bu ma ñëwee présenté wu ñu ne ma doo dugg. ñu tere ma dugg ci bi ci portail bi nañ ma téye ne ma doo dugg ma laaj la du tax du ma dugg ñu ne ma nag ngay annoncé ma ne ah ma toog taxaw xaar taxaw xaar quelques minutes ma ne ko mais euh, da nga ma da ma ne da ngeen di ma annoncé euh, maa ngi xaar ba léegi nu mu demee nii ñu ne non non di euh, chef bële moo ngi lay annoncé am ku ñëw laaj ma ma présenté wu mu woo ay supérieur am ñu wax mu ne ko kookan la ma jox ko sama carte député présenté wu ma àndoon ak huissier huissier génnee carte won ko nekko moom itam dafa ñëw pour notifier signifier décision bi à la direction général des élections ñu ne d'accord maa ngi ñëw mu dem ñëwaat ne directeur général des élections nee na ko tey DGE du recevoir kenn la DGE ne reçoit personne aujourd'hui ma ne ko est-ce que lu nga wax nii est-ce que am na est-ce que yaa ngi dégg bu baax lu ngay wax est-ce que am na kii di service public la amu leen déjà droit tere ma ma dugg amu leen déjà droit man en tant que député même su ma nekk woon député sax nekk simple dama war a dugg dem a niveau du service est-ce que service boobu ñoom amuñu euh, maanaam fit wala amuñu sañ-sañ mais bien sûr damay présenté wu lu tax du ma présenté wu <laughs> mais on est des citoyens comme tout le monde voilà donc euh, est-ce que ñoom amuñu motif déggoolum la wax nee nañ tey DGE pour recevoir kenn mais déggoo lu mu la wax nee naa la amuñu motif quoi amul motif kay amul motif soo demee soo leen mënee laaj ngeen dem laaj amuñu motif lu ñu fas yéene def mooy xeex pour exécuter décision de justice parce que lu ñuy def nii jaay doole la teguñu ko fenn ñëpp gis nañu dañu doon ne force reste à la loi te Macky Sall moo toog jour boobu muy annoncé ni du du nekk ci dafa di troisième candidature ne je vais veiller personnellement à l' exécution de justice mooy décision de justice buñ ci jël moom na ci taxaw temm pour ñu appliquer ko mais gis nañu tey décision de justice bi bañ nañ ko appliquer te loolu moo ci gën a garaaw du ñun suñu du man en tant que mandataire du Ousmane Sonko en tant que candidat mais lu garaaw mooy tey citoyen yëpp a nekk en danger puisque yow soo demee état de droit nga ñëw indi décision de justice ñu ne décision de justice bi ñoom duñ ko appliquer en tant administration day doy waar donc ça veut dire état de droit jeex na Sénégal démocratie jeex na Sénégal ñoo ngi dugg nag si loo xam ne dictature la te loolu tamit duñ ko nangu dañ cee xeex ba jëlee ko fi parce que lu ñuy def nii jaay doole rek teguñu ko fenn donc suñu fiche de collecte de parrainage incha allah nañ ko jël si mu neex leen mu naqari leen loolu daal nañu mën a ma ne nañ ñëwaat autant de fois que euh, en tout cas possible pour jël fiche de collecte de parrainage ci jamono ji déjà suñu candidat ay droit am violé nañ ko parce que ñëpp récupéré nañu fiche de parrainage Ousmane Sonko rek jamono ji moo récupéré ay fiche de collecte de parrainage te lu recours yu moo waroon def yëpp def na ko ñoom nag dafa mel ni dañuy jéem a gagner du temps ils jouent avec le temps waaw te loolu nag duñ leen ko seetaan nañ fi ñëw taxaw autant de fois pour récupérer fiche de collecte de parrainage yooyu parce que loolu obligation la waaw lépp lu ñu yoon ma ne lépp lu ñu yoon may daal nañ ko def pour récupérer suñu fiche de collecte de parrainage loolu nañu wax exécuter décision de justice bi lii moom kenn du ko seetaan kenn du ko xool muy wéy di continuer voilà